ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj ci junni ak juróom-ñaar fukk ak ñeent test yi ñuy def juróom-benn fukk ak ñett ñoo ci positif ci ñooñu am na fanweer ak ñeent cas contact mooy ñi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi am nañu ñeent cas importé mooy ñu jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne de jas mu am ñaar fukk ak juróom cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo yore doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul fan lañ ko jëlee ci ñooñu nag Richard Toll am na ci juróom-ñaari ah, am na ci juróomika ka Richard Toll juróomi ka am na ñaar Thiès am na ñaar Tivaouane am na ñaar Bignona am na benn dalifoor am na benn Diourbel am na benn Guédiawaye am na benn Kédougou am na benn Liberté 5 am na benn Mariste am na benn Nord Foire am na benn Waaguñaay am na benn Parcelles Assainies am na benn Pompier am na benn Pikine am na benn Rufisque am na benn Ziguinchor am na benn bés ni ki tey bi dalee ci kaa bu njëkk ba Sénégal jot na wàññi juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñu jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróomi junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent wér nañ ci téeméer ak juróom benn fukk ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaari fukk ak ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal ñi nga xam ne am nañ ñu wàññeeku ci seeni mbokk ñu entré woon hôpital te di ñaanal ñi des yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé de l'action sociale mu ngi leen di fàttali ngeen gën a sàmmonte ak digle yi mu joxe ci digle yooyu nag ñu ngi leen di ñaaxaat encore ci di jëfandikoo seeni masque saa bu ngeen di génnee di dem ci yenn bërëb yi nga xam ne da ngeen di daje ak nit ñi te fépp fi nga xam ne da ngeen di nekk ci mbooloo nangeen ngeen fexe ba sa diggante ak ki nga janool wala kii nekk sa wet mu lu lu mu néew néew mètre dox seen diggante ministère la santé